kon li jëkk am solo mooy nit ki fexe ba aju ci sëriñ bi aju sëriñ Tuubaa nag Cheikh Abdul Quddus Mbàkke da ko daa misaale misaal mu leer te jege daa wax ni sëñ bi diggéene yu bari yoo xam ne da koo dig ñi aju ci moom li kulli man li yataallaqa najaa loolu wax na ci lu bari bari ba bay di mel noonu waaye nag taalluq mooy nee na boo demoon ca gaar ba saxaar gi wagon yi nga xam ne ñoo ci jàpp boo ci xam ne aju na ci saxaar gi bu saxaar gi dem da ko yóbbaale wagon boo xam ne nag ajuwul ci saxaar gi bu saxaar gi dem da ko fi bàyyi xam ngeen ne mag ñi àndoon ak sëñ bi ba Louga noonu leen tubaab yi def saxaar ga dañ leen dugal ci wagon woo xam ni ajuñu ko ci saxaar gi ba sëñ bi départ ànd ak saxaar ga dem bàyyi fa mag ñooñu kon jëmmi aju mooy nga fexe ba lonku ci sëriñ bi sag ruux ak ruuxam lëkkaloo loolu mooy li jiitu nit ki war koo yittewoo léegi nag lan mooy maye aju lii maye aju loolu mën nañ cee dikk ci sëñ Mbàkke Buso sëñ Moussa Ka da ko laaj ay laaj ci wàllu boobu yu bare bare bare muy lu am solo waaye sëñ Mbàkke ba mu koy tontu dana ko aju mbirum xol la mbirum xol la moo xam ni wax dana ko tegtale jëfit dana ko tegtale baat bi ñuy wax ne aslamtu nafsi wala baayaatuka wala yu demee noonu xeeti wax yu yëpp it mën na koo tegtale waaye bu cee génn loolu kese mooy firndeel sag aju ci sëriñ bi ci sàpp yi tam ne faw nga wax ne jébbal naa la saa bopp wala jaay ci dama ak moom loolu suñ mbàkk bu sa wax dana ko aju mbirum xol la nga xam ne yadullu alayhi alqawlu wa gayruhu min al amali al badaniyat ndax booba sëñ Moussa da ko laaj ndax joxe addiya ak liggéeyal xidma dana maye aju mu njëkk ko tam ne ko aju mbirum xol la ne ko nag jox ko misaal nag ci ne ko ci diine booy dugg da ngay wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu li ñuy jariñ mooy ñun suñ digg suñ diggante diggante jullit yi ak yow ndax boo day firnde ne doon nga jullit ñu mën laa def mbokk di jëlante yow ci soxna di la di doonante yow waaye baat boobu jotuwut ak dara mbirum xol ma noonu la ko suñ mbàkki bu so wax suñ bi suñ mbàkki teg ci ne koo xam ni daa jël nit doxale ko diggam ak boroomam subhaanahu wa taala su ko ko xamalee rek ne ko yow laa defu sëriñ mu nongul ko ko rek aju bi am na moo tax nag loolu ak wax jooju bi ñu ko tënkee seetlu naa ne am na ñett ba ñeent ba juróom yoo xam ni mës na ko ci jële ne mën naa maye ak aju ci sëriñ bi la ci jëkk moo jaayante jaayante ak sëriñ bi wala ku jëmmal sëriñ bi loolu dana maye aju ci sëriñ bi dana ci ñëw ci lu gën a yaatu jël wér du itam sëriñ bi wax na ne dana maye aju ci moom loolu dana ci gën a yàlla xidma itam boo xam ne da nga koy def ànd ak pësteef ak cofeel bu dëggu di def sa alal ak sa kattan ci sëñ bi ànd ak bëgg bëgg bu wér loolu dana may aju ci ci ci sëñ bi loolu buñ koy gën a yaatal dañuy wax ne jël wird bi moom sëñ bee ko waxal boobu moo wax ne amma taalluqu fa yaxsulu bi axdil wirdi sawaun saaxabal saaxabal xidmata am lam yusaaxibuhu fa inna alqalba mahallu nazarin arrab nafs bi sëñ bi da cee wax ne taalluq jël wir dana ko maye waxut nag ne ci moom kese lay am yaxsulu mooy dana ci amee comme mën naa amee ci yeneen anam itam bu dee xidma itam ak xadiya moom it ci nafsu sëñ mbàkki bu su boobu lañ ko jëlee mu wax ne walaysa samma dalilun ala taalluqi azharu min alxidmati walhadiya wax ne nit ki nga xam ne da nga ñëw di ko jox sa alal di ko jox sa waxtu di ko jox sa kàttan te yàlla rek tax te fa bëggoo ci leneen lu may bëgg ko def ko sa digg def ko sa wasiila bu dox sa diggante ak sa borom leneen loolu dara mënu ko gën a firndeel ak aju ndax loolu mu taalliqoon ni rek ñoo ko def jëf yooyu ak xidma boobu ak joxe addiya boobu ak joxe sa temps sa kattan sa xel loolu dafa wax ne ñi aju rek ñoo koy def ñoo koy defal ci ñeen aju bu ca bu ca boolee yeneen yi nag da koy gën a firndeel kon kon xidma ak bu bu sax te wér te dëgg te pas-pas lan ko ànd ak joxe sa dooleeg sa alal comme ni ñu ko waxee loolu it dara gënu ko mën a firndeel aju mu bàyyi amal muy jaayante moom ku ne xam na ne ci lislaam rek jaayante moo di ci dugal jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam képp ku ñëw nekk ci biir lislaam bëgg dugg ci lislaam da nga jaayante ak rasul alayhi salaatu wasalaam aay yu bari wàcc na ci xadis yu bari wàcc na ci loolu ginnaaw yonent bi biñ demee ba xulafaaw yi arrachiduna jeex nit yàlla yi ñoo yeesalaat yoonu jaayante googu tàmbale ko Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ba ci ñoom kilif nit yàlla yëpp rek ci ginnaaw ci ci ginnaaw ñoo yeesalaat jaayante googu nga xam ne ku jaayante moom ñoom day mel ne rasul lay nga jaayante ndax ñoo fi wuutu rasul lay sallallahu alayhi wa sallam ci diine loolu mën nañ koo jàng ci li suñu borom wax inna alladina yubayi'unaka innama yubayi'una allah moo ñi jaayante yonente bi yàlla la ñu jaayante ku jaayante Sëriñ Tuubaa itam yonente bi nga jaayante rasulullah sallallahu alayhi wasallam ku jaayante rasulullah sallallahu alayhi wasallam suñu borom nga jaayante loolu yonente bi àgg na ci wax ne ku faatu te jaayante woo kenn deew jeexit nga nga faatu hadis bi mu ngi ci Sahih Muslim mu wax ne man maata wa laysa fi unuqihi bay'atun maata miitatan jaahiliyya maanaam jullit yëpp nangu nañ jaayante day am ñoo xam ni nit yi politique yi lañ jaayante buur beeg ak yu demee noonu am ñun nag ak nit yi tasawuf ñu nekk tarixa yi tànn di jaayanteeg nit yàlla yi ñi nga xam ne ñoom ñoo wuutu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci dugal loolu imam ahmad nekk na ci beneen xadis boo xam ne wax ne man maata wa laysa lahu imamun maata mita miitatan jahiliya te jaayante bi bu xasee am suñoo caa génn yonente bi daan wax ne man xalaa yadan min taatin laqiya allaha yawma alqiyamati laa xujjata laa xujjata lahu wa man maata wa laysa fi unuqi bayatun maata miitatan jaahiliya xadis bi imaam muslim nekk li moom it wax ne képp koo xam ne jaayante ba jaayante na ba noppi génn ca bu ëllëg yawmal xiyaam bu amul lay fa kanam suñu borom tabaraka wa taala lislaam it leeral nañu jaayante lan la laaj dafa laaj kóllëre la koo xam ne nga ko war a sàmm dafa aaj itam topp ci nga jaayante man xaraja min altaati wa faaraqa aljamaata fa maata maata miitatan jahiliya mooy xadis bi imaam muslim nekk li moom it yonent bi ne koo xam ne jaayante nga ba nopp ginnaaw ba nangu woo topp ka nga jaayanteel na nga xam ne deew jahil boo dee moom nga dee na jaayante day day lu rëy ci lislaam yonent bi daana wax ne alxuraan sax moo njëkk wax ne yaa ayuha alladina amanu atiu allaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum na ngeen topp kilifa yi moom la suñu wax ne wa xaysuma amaraka murabbi famtasilil amra tasir li rabb am na teggin yu bari itam yoo war a sëq ak ki nga xam ne moom nga jaayante sëñ bi leeral na lu ko te mooy jox ko cër def ko sang ay yitteem loo ca man nga di ca taxaw sa kem kattan te am war na fi kanamam bañ di wax wax ju bari wala di kaf kaf yu bari wala di reetaan wala di geesu geesu bu bari wala lenn luy xotti war ma rek nga bañ ko def ci kanamam loolu suñ wax na ci lu bare bari ca nës du xadaay xaaj waaye wax ni itam ne koo man di àndal itam muy sa kilifa bul ko topp ci mooy yàlla wa bil maasi la tutaa maxluqan loolu la suñ wax loolu rasul lay moo ko njëkk a wax ne alal mari al muslimi assamu wa taatu fi ma ahabba wa kari illa an yumara bi maasiyatin fa in umira bi maasiyatin fala sama wala taa koo mën a jaayanteel itam lu mu la digal na nga ko def lu mu la saret na nga ko bàyyi waaye li féeg nag yéen a ngi sori mooy suñu borom li fi bu mooy yàlla duggee rek bul toppati bul bul bul dégg loolu moom yonente bi wax na ko sëriñ bi itam wax na ko jaayante itam bari ay secret yu ci la ci jëkk mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam danaa xër ci boo ñëwee ci moom da ngay teg sa loxo mu teg loxo yadullahi fawqa aydihim la suñu borom wax boobu am na mbir yu bari yuñ ci mën a wax salama tubdul akwa dafa jaayante ba noppi di saxaabi yonente bi ne ko nga jaayante waat te ab saxaabi ku ne xam ne ne dara ci naafeq du nekk ci moom kon jaayante boobu ak jaayante waat bi ay ay secret moo ci nekk Sayyidna Usmaan ibnu Affaan keroog ca soo Xudaybiya ba mu nekkee Makka ñëw yonent bi dafa teg loxoom beneen ne bii maa ko jaayanteel Usmaan yëpp day gën a dëgëral mbirum jaayante suñu borom wax ci Alxuraan ne ñi koy def dañuy jaayanteeg suñu borom yàlla lañu jaayanteel yonent bi moo toog gaa yi jaayanteeg moom mu ne yubaayi'uuna allah inna alladina yubaayi'uunaka innama yubaayi'uuna allah foofu it lu bari mën nañ ko ci dégg yu suñu borom wax ci alquran ne ngërëmul yàlla da cee nekk te loolu mën nañ ko déggee ci li mu wax ne laqad radiyallahu an almuminina is yubaayi'uunaka waxtu yi ñu jaayante ak ñoom yi ñu jaayante ak rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi foofee lañu amee radi ridwanu ridwanullahi al akbar waqad laqad radiyallahu an almuminina is yubaayi'uunaka taxta shajara te foofu am na yeneen yu bari yu ci ne fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim ci jaayante yooyu yëpp ci la ci la ko suñu borom defale gaa ñu jaayante bi ñu jaayante rek seen leen defal loolu wa asaabahum fathan qariban fathu itam ci jaayante moo ko may wa maghanima kathiratan yaaxuzuunaha wa kaana allahu azizan xakima waadakum allahu maghanima kathiratan taaxuzuunaha fa ajjala lakum haadihi wa kaffa aydiya annaasi ankum wa litakuna ayatan mumin wa yahdiyakum siratan mustaqima wa uxra lam taqdiru alayha qad axaata allahu biha wa kaana allahu ala kulli cheyin qadira loolu dañ ci bañ a taxaw muy gën a gudd waaye secret jaayante lu bare la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam keroog bi ñu jaayante moom ca sulxul xudaybiya da leen wax ne antumul yawma xayru ahlil ard bi ngeen jaayante ba noppi jàpp leen ne yéen a gën ci kaw suuf moo tax jaayante li ma bëgg a wax rek mooy ci lislaam dafa bokk ci li lay dugal ci lislaam noonu it la lay dugale ci biir aju ci sëriñ bi itam ci boo jaayante yow kon jaayante dana maye taalluq ci sëriñ bi jël wirdam dana maye taalluq ci sëriñ bi sax ca xidma itam bu ànd ak joxe sa kàttan ak sa alal ak sa doole ànd ak pas-pas ak bëgg boo xam ne dafa wér ci yow loolu dana maye aju ci sëriñ bi